mooy gannaaw bi ñu defee référendum bi ba pare ñu dajee suy coalition courant du oui bi nga xamante ni APR ci la bokk CPGE si la bokk e euh, ak yeneen parti yëpp muy parti socialiste di AFP di LDMPT URD ànd jëf ak même ñi nga xamante ni dañ demoon individuellement si élection locale yi ku ci mel ni Pape Thioub ku ci mel ni Lamine Dieng ku ci mel ni Siré Seye ak même waa bëstu ñàkk yi nga xamante ni <clears throat> bu ñu fàtte ni ci biir élection yi ñoom aussi bëstu ñàkk bu Tivaouane ñoom ñëpp dañu ànd nii wii bi la ñuy la ñuy voteel donc tey dañ dajal woon nit ñi pour remercier leen ci seen engagement mais tiire tamit <clears throat> un bilan maanaam référendum bi yan leçon moom lañ ci mën a mën a jëlee en tout cas biñ ci jógee dañu wax ni am nañu satisfaction ndax ndam biñ doon ñaan yàlla may nañu ko ñaanuñu woon rek waaw bi gañe fi mais waa bi gañe fi nu mu gën a yaatoo gañe na fi nu mu gën a yaatoo ndax téeméer boo jël Euh, juróom-ñaar fukk yi waaw la ñu wax fanweer yi ñoom ñoo wax déedéet loolu nag xëy na am nañ ci ndam kontaan nañ ci ndax soo demee ci biir Sénégal téeméer boo jëm juróom-benn fukk ak ñaar ñoom ñoo wax waaw kon suñu too moom moo gën a baax waaye terewul nag ñun yaakaar nañ waroon nañ mën a def loo xamante nii moo raw lii nga xamante ne nii am nañ ko loolu nag lañ doon waxtaanee def ci ay jàngat xool lan moo waral ñenn ak ñeneen yi nga xam ñi ngi biir Tivaouane ànduñu ci ak ñun. ci li nga xam ne moom lañ leen ñaanoon mooy ñu wote waaw ci ci ci référendum bi loolu bu ñu ci jógee ñu mën a nag delluwaat seetiwaat population yi tey jii jël nañ décision à partir de diir bu gàtt képp koo xam ne demoon nañ taxaw ci yow wax nga woteel ñu delluwaat ci yow non seulement jaajëfal la mais dégluwaat la pour nga xamal ñu euh, yan gis-gis nga gis nga am ci doxalin bi nga xamante nii ñu ngi koy doxal seetlu nañ tamit ne bu dee Tiwaawan gu njëkk ga nga xamante nii moom moo am lu ëpp solo ci wàllu électeurs yi bépp lieu de vote bu fi nekk rek waaw la ñu wax waaye am na bu bu su ko seetloo ay quartier yu bees yoo xamante ni nii ay village la woon ñu nekk quartier bi am nañ ci ñeent yoo xamante ni noo noo bi moo fa moo fa am ndam dañ delluwaat nag xam lan moo waral loolu waaye su ñu njor am na lu ñu jatoon a wan bi ñuy def tournée bi parce que fu ñu dem rek dinañ ñu wax ne ñun kat ñëw ngeen seet si ñu waaye ñun sentir guñ ñu Tiwaawan lañ boo ndaxte amaguñu tali amaguñu courant amaguñu ndox loolu nag danañ dem seet si waat leen xool ñun ban taxawaay lañ ci mën a taxaw mais su xamal leen ni loolu yëpp ñun lu ñu prévoir la ndax biñ ñu waxee ci biir comité de pilotage programme modernisation du Tivaouane lan mooy suñ priorité dañ leen wax ne suñ priorité mooy bépp dëkk boo xamante ne nii léegi quartier nga nekk ci biir Tivaouane mu am tali boo xam dafay jóge ñëw ci biir dëkk bi bu fekkee waa wàllu éclairage public ñi ko amul instant yi may wax ak yow nii am na juróom-ñaari dëkk yoo xamante ni Sénélec ma nga fay def courant ci lu toll si 214 millions de francs CFA mais adduction d'eau yi tamit yu bari am nañ ndox mais ndox yi demul ci biir kër yi loolu yëpp nag nekk na loo xamante ni seen ay mbébét la te gisuñu ñu woon pour mën ñu ko diis ñu mën ci waxtaan ak ñoom wax leen yan taxawaay lañ ci war a taxaw yaakaar naa ne loolu bu ñu demee ba xamal leen ko jox leen solution yi nga xamante ne nii moom lañ ci gis am nañ yaakaar ni 2017 ak 2019 dinañ am bu baax a baax résultat yoo xamante ne nii moo gën yi nga xamante ne nii nga euh, am nañ ko wante nag dañuy remercier féliciter population Tivaouane bu baax a baax ci déglu bi ñu déglu ak ànd bi ñu ànd ak ñun ba ñu am 70 70 pour cent waaye nag victoire bi yëpp liñ ci gën a neex waxoon nañ ko bi ñu def campagne bi bi ñu demee quartier El Hadj dañu leen woon nag ñu ne bu ñu ñëw jàppale école 2 nga xam ne Serigne Abdoul dinañ ñëw jàppale leen tey jii bi ñu defee bilan bi mooy école bi nga xam ni moo raw moo nekk P ndaxte bu fekkee ñun am nañ soixante-dix pour cent de oui école boobu quatre-vingt-cinq pour cent de oui moo fa am donc ay benn benn noo rek moo fa am loolu nag sagam la suñ sag la ndax nag ku sañoon soo amee sa njaboot soo waxee ñu déggal la mais loolu wane nañ déggal déggal nañu ñun ñii sax décidé nañ comme ni ñu defoon ba ñuy tàmbal dem mu ñaanal ñu te bañ fay dem euh, wax dëgg yàlla amul sax un sëñ Abdou amul woon un discours politique ñu xamaloon rek mooy yéen ñëpp doomu Tiwaawan ngeen def leen ko ci dal def leen ko ci jàmm jàmmoo leen ku nekk far fi nga far ba nga xam ne bu résultat yi di génn xiiroo ak ŋaayo am si yéen loolu nag il faut ñu dem dëggal ko ni ko noonu lañ doxale jëlaat yeneen conseil pour fi ñu jëm muy 2017 ak ak ak 2019 waaw 2017 2019 aussi li ñu ñaan ci perspective liñ ci gën amal solo mooy ànd bii ñu ànd tey nga xamante ne wax naa ko APR mi ngi fi CPG e mi ngi fi Cheikh Tidiane Diouf honorable député ak ay àndandoom ñi ngi fi euh, waa parti socialiste ak Aïssatou Bamba Diaw Sall ak ñeneen partisans ñoom ñëpp ñi ngi fi waa AFP LDMPT AJPADS URD ba si bés du ñàkk ñëpp mi ngi fi dañuy ñaan yàlla bu ñuy dem 2017 ñu déggoo suñu biir ba demandoo bu ñu dem 2019 ñu déggoo waat suñu biir ba demandoo yaakaar naa ne loolu moom mooy suñu premier objectif boo xamante ne nii mooy mooy dynamique bii ñu ànd ñu ànd ko mu bañ a bañ a kasewu responsable yëpp ñu ngi ci te incha allah am na benn bës bu ñu dëtmal boo xam dinañ toogaat gën a defaat jàngat responsable yëpp dinañ fa teew muy ñoom Abdou Ndéné muy ñoom madame le ministre ñoom Diop si ñu waxtaane suñu biir xool 2017 euh, naka lañu fay demee ensemble te am naa ci yaakaar bu baax a baax parce que volonté bi mi ngi fi ñun ñii ñëpp tey jii loolu mooy suñu yéene te incha allahu taala loolu bu amee moom yaakaar naa ne Tivaouane résultat yi ñu am tey muy 70 pour cent de vie législative comme présidentielle nañ am lu ko raw fuuf. jërëjëf jërëjëf.